ban année

good enough. Thank you. kontaan ci allah cours bi nice nañu ngeen ak ngeen wuyu leen ci digg pare na waa salaamaaleykum Sénégal salaamaaleykum àdduna maa ngi tudd Salif Diallo waa juddoo yëmbal dëkk yëmbal di artiste professionnel danseur aussi waaw je la danse la musique aussi li ma ba ma duggee ci art dafa yàgg. tay bu xamna ni amana bu ma nekkee di la wax lan mo dugg ci art bi communication bi day yag wa man fi ni ñi taxaw ni fi la duggé art fi ñi taxaw parce que ba muy dugg ci art ma ngi duggé ci Golli Sarr da yëmbal te Golli Sarr yëmbal ku ko xam ku ne xam na fi moy base am comprendre nga wa depuis bobu ba tay nak dugg metti torop nak samay wajur mom def mo fecc parce que man sama famille am ko ci def art ñin ay peul la ñin sam lañ xam ak dem ca tole ya ak ca waaw yàlla def na ma nak man sama yoonu bop la jaar bëgg aar doon sétane wa Gulli sar yëmbal ba lool mo tax tay ma dem ba dugg ci aar tay jii ba bëgg aar bi tay waaw. wa parce que daf ma jaral parce que man dama doon jang waye man jang yàqul sama euh, aar bi yàqul sama jang. man saret mo yaq sama sama jang. waaw après nak la bay dawal saret nak suivre aar bi top aar bi top aar bi top aar bi xam nga famille souvent bo ci nekké ni ngeen doon ay kat kenn duñu fa aar day metti pour lii waaw yàlla dimbali na ma nag ba ma demee ba bëgg aar ba xam ne lii man li laa bëgg sama biir xol xaaruma ma sàmba xaaruma ma demba dama yeewu fajar yeenu sama saak dem fu ma xamee laa xam naa fa mun naa fa am expérience wala mun naa fa am xam-xam tamit pour ñu ma dimbali ak ñu ma dimbali rek damay dem tamit jéem a yokk sama xam-xam parce que man aar bi moo may dundal instant bi nii moo tax may def recherche ku nekk ku ma xam ku nekk tamit ci aar bi nga ma xamee dëgg la loolu boo ma si laajee dinaa la sawar a tontu xel day liggéey ku nekk tamit ñaan nga yàlla liggéey yóbbu sa sa produit yi mu nekk international mais fii lañ dëkk mais amaana ñi la ñu bëgg a liggéey ak ak ñeneen ñin du fecci rek la ñuy def wala expérience bi li nekk si aar bi dafa bëri ñin si ne aar dañuy jàng di jàngale ñi ñuy jàngal étranger bi ngay gis li ñuy dem tamit ñi ñuy jàngal tamit ñoom dañu ne jàngal mais après tamit ñun bu ñu xewlee fii Sénégal dañuy bàyyi seen yëpp ñëw jàppale ñu jël seen doole ak seen xéewal def si yokku ñu expérience yokku ñu capacité boo xamante ni tamit ñun dinañu gën a yokk suñu xel boo xamante ni dinañ mën a dimbale artistes yi artistes dinañu mën a dimbal xam nga comme initiative bi mbay def nii làmb daj danse bi lii dafa dajalewaat artistes yi motivation la tamit si artistes yi waaw lii tey ku ñëw fii di nga di nga gis leneen di nga xam ne ah ñii ñooy def lii wala fii ku nekk capable nga def mais bu ñu boolee xol yi suude gën a ubbi affaire day neex dëgg bëgg nañ ko fii lañ dëkk mais ñaan nañ yàlla am fi ay école de danse am fi ay entreprise yu bëree bare bare bëri bëri si aar bi parce que aar bi la ñuy dund. waaw ndaw lu mu leen di wax mooy ñi lu te bu ñu nekkee ci aar bi li ñu bëgg a tëdd ñu dem liggéeyi comme seen grand frère yi nu mu liggéeyee. parce que toog di dem programme yow artiste nga ne artiste nga di dem si programme yi wala si xew yi 1000 francs yi 2000 yi neex na de mais jàngal ba am yenn diplôme yi ci aar bi wala ba comprendre mën a jàngale mën a xam nan ngay tegee say projet. fois mais bu nekkee damaa bëgg dugg say aar bi tey gis naa saare bi ngi nii rek fekk ay programme ay yii programme programme la waa parce que ñun lañ bëgg si aar bi programme yi mënuñu koo may kon donc faaw ñu def recette ñun dañoo yàgg a jóge fii di dem académie di dem fii ba ay Belees ay Kaolack ay nang fu ne di dem di gàllu sin saak kenn ñu fay ñaar dërëm tey boo yu bëri tey ñu ngi si aar bi jamono bi tey koo si woo répété rek pour mu répété problème la parce que naan waaye wa ngay woo répété mu naan lu nekk doo ko fayeegu waaw

gën a liggéeyaat gën a joxante cër ku ne jox sa morom cër parce que cër cëralante la amul diir mbagg amul dem ne ni da ngay wàccee sa bopp bu nekkee aar bi ngay dund parce que fii boo amul cër yenn yu bëri duñ la si mun a boole waaw kon yàlla ñu yàlla musal ci seytaane defal ñu jàmm ak tawféex bay lu ma koy wax dama koy ñaanal gudd fan ak wér yaram waaw parce que moom daf maa jëlee fu sori yóbbu ma ba Danemark ma jël ko festival ak jabaram kon xam naa ne moom li muy mbëbët lu lii mu gën a tuuti Danemark bee mu nekk fee ñu ngi fay def ay festival yi festival yi festival parce que lépp tamit moom bëgg na jëlee fii groupe tamit ñu def international wër waaw mbay dama koy ñaano yàlla gudd fan ak wér gu yaram tamit lépp lu mu bëgg ci ci làmb daj daas yàlla na gën a yokk gën a yokk gën a yokk yàlla defal ko tawféex moom Baye Fall la sama raq la topp si man rek rëq ma waaw sama raq bu baax la nag ku ñàkk ñaan la nañ ko gën a ñaanal projet yi gën a yokk parce que lii mu def yombul parce que dem na ba dajale fi ñëpp dajalewaat artistes yi dajale théâtre kat dajale danseurs yëpp kon yàlla ñu yàlla defal jàmm dafa ñu sutura dafa ñu xéewal dafa ñu tawféex kon làmb daj danse rek ca kaw ca